Euh, récemment j'avais fait benn live di ci wax tuuti donc euh, j'avais reçu pas mal de commentaires donc les euh, gens qui me disaient waaw mais focus focus waaw le projet waaw donc après <laughs> je me suis pas trop épanché là-dessus bon j'ai tomber parce que je me disais que am na ñoo xam ne peut-être seen degré de compréhension c'est très compliqué parce que fi ma doon jamono jooju xam naa bu baax fan laa doon pointer du doigt et dans ce dans ce c'était en live je sais plus Euh, je disais à Pastef, n'ayez pas honte de vouloir diriger ce pays. N'ayez pas honte de réclamer des postes, de réclamer à Ousmane Sonko, au président Bassirou Diomaye Faye, de vous mettre dans l'attelage gouvernemental, de vous mettre dans les directions ngeen diriger réew mi. réew parti politique bi gagné mooy diriger réew. adduna yëpp noonu lay doxee mais quand tu dis ça les gens disaient non mais waaw xam nga focus bi projet bi tu sais waaw xam nga man la eh mais mais attendez donnez-moi un seul exemple au monde où un parti politique à gagné des élections n'est plus dirigé qu'est-ce qu'on veut pas lu ñu xeex ci Macky Sall xeex ci Abdoulaye Wade lu ñu xeex sur le système mooy que bu ñu fi fale di kenn muy sàcc suñu xaalis ñun loolu rek la ñu wax mais vouloir restreindre le parti à deux personnes parce que l'erreur que vous risquez de commettre mooy mais Ousmane Sonko tous les Sénégalais savent que le sacrifice bu mu def pour Sénégal mais kooku ñëpp a ko mais le Sénégal ne s'arrête pas à Ousmane Sonko le Sénégal ne s'arrête pas au président Bassirou Diomaye Faye n'ayez pas le complexe de vouloir diriger ce pays wax naa leen ko la dernière fois et je suis content de voir euh, hier j'ai suivi en live de mon très pertinent comme d'habitude. J'ai écouté une vidéo de Babacar Diop Italie toujours pertinent muy wax waa Pastef mais vous mais Pastef moi personnellement pourquoi je ma en fait man dama leen gis depuis le début mais Pastef bi nga biir parti Pastef ñi si nekk peut-être sur euh, euh, sur les réseaux sociaux di wax xëy na bon la ñu gën a xàmmee mais ay tête ay bopp rek nekk biir Pastef si sont des gens yoo xam ne tey suñu jugoon fii jël décision ne dañu commencé live dañu commencé vidéo sama genre ge keneen ak keneen du waxati parce que nous allons nous trouver tellement ridicules par rapport à ces gens là que dinañu am kersa di wax parce que ce sont des gens des têtes pleines en fait donc moi personnellement xam na man en fait complexe bi gars yi di am pour wax yenn wax yi man j'ai pas ce complexe en fait man je que je pense ma xool ne su ma waxee lii est-ce que duñ ko kooku lijjantiwuma ko man kon ni ma ko et quand je l'ai dit aussi mais la preuve je vous ai dit mais donnez-moi un seul exemple au monde un parti politique qui a gagné des élections ba pare ru se pourquoi les les les les sympathisants les militants de Pastef ont honte de vouloir diriger ce pays pourquoi il y a des compétences dans Pastef qui ont honte de dire que nous on veut faire partie de cette équipe gouvernementale on veut faire partie de ñu nar a diriger Sénégal pour ñu defar Sénégal mais vous pensez sincèrement ñun Ousmane Sonko et e Diomaye Faye rek le Sénégal va leur nom ceux qui sont dans Pastef qui sont aussi méritants que ces gens-là vous pensez que ñoom ils ont pas le droit qu'un que leur famille leurs enfants leur père leur mère soient fiers de ne man de sama doom bu ñu defar Sénégal wala seen sataat ne mën Sénégal bi ñu koy defar suñu papa wala suñu yaay moom bokkoon na ci vous pensez sincèrement que voilà on doit parler que de Bassirou Diomaye Faye et tout on parle pas de partage de gâteau n'ayez pas ce complexe partage de gâteau loolu jamono ñoom Macky Sall la moo dañ lay fal pour nga ñëw lekk si mais tout le monde sait que avec le président Diom Bassirou Diomaye avec le premier ministre Ousmane Sonko kuy fi jox poste soo si lekkee fifteen sa waay doo faraan sa kër donc ça au moins le monde le sait donc bu leen heurtal nit ñi bu leen toog di def ay allusion machin waa gis nga kii bëgg na lii oui mais quand tu prends l'exemple bon peut-être je vis de la France Mais quand on te parle de grands projets, bon, pas plus tard quavant je regardais euh, une émission, on parle de ki nga xam ne euh, c'était sous De Gaulle, je crois, je sais plus comment il s'appelle, moom moo entreprendre l'électrification de la France. Mais c'est un ministre, pourtant waxuñu le président De Gaulle, non, c'est le nom de ce ministre qu'on a retenu. Quand on parle du droit des femmes, avantage yu femmes yi am, mais on parle de Simone Veil, on parle pas président bi parce que ay nit xam ne ay doom seen man de doomu Simone Veil laa man de doomu diw laa woon wala man de surtout kii laa woon donc c'est ce message que je voulais passer di ko waxaat les gens de Pastef n'aient pas honte de vouloir diriger ce pays après bon du ko ma diront waaw xam nga projet bi waaw xam nga waxu Facebook yooyu quoi projet bii xam nga projet bi projet bi lan projet bi lan quel projet c'est un projet qui est porté par des citoyens sénégalais qui sont euh, dajaloo ci benn parti politique bu sont des gens aussi méritants que le président Ousmane Sonko aussi méritants que le président Bassirou Diomaye donc def seen allusion yooyu day tax xëy na ñooñu ñu xaw a am et moi je me dis ñooñu amuñu amuñu franchement moi aussi moi je les comprends pas pourquoi vous avez honte pourquoi ngeen am kersa vouloir ñu tudd seen tur kon ñu tudd tur Ousmane Sonko pourquoi vouloir ñu tudd seen tudd président Bassirou Diomaye pourquoi vous avez honte loolu fi tere mooy ñu fal la nga sàcc suñu xaalis ko ku ko sàcc moom amul maa ngi ñëw parce que loolu dañ ko xeex ba le monde euh, am nañu fulla boo xam ne duñu fi fal nit buy ñëw di di fooy suñu suñu suñu suñu suñu alal loolu loolu moom dépassé nañ ko je pense pour finir man gis nga bu leen déglu conseil yu nit ñi je dis pas que faut être suffisant ngeen doyloo seen bopp mais écoutez moi je le dis à des gens ils waaw xam nga seeg xam nga gis nga problème bi passé gis nga foog ñu wax ak ñoom foog ñu conseiller ma ne mais comment peut conseiller des gens un parti politique qui a été créé en 2014 ans 2017 mu jox la benn député il arrive troisième aux élections présidentielles 2022 mu rafle presque toutes les grandes fi pour la première fois de l'histoire du Sénégal mu indi fii plus de quatre-vingts députés à l'Assemblée nationale fay il a Pastef ak man Pastef laay wax parce que ñu fi nekkoon naan waaw ñun ñoo indi suñu ay militants gis nañu élection yi passe ils ont même pas un pour cent te pourtant fa lañ nekkoon après législative naan non Ousmane Sonko moo tax ñu am quatre-vingts députés ñun suñu ay nit la bah ils sont où vos gens on a vu les élections présidentielles passées ils sont où vos gens vous avez même pas un pour cent vous ne représentez même pas un pour cent de l'électorat donc Pastef indi fi encore plus de quatre-vingts députés 2014 laa wax de 2017 tu donnes un député 2019 tu arrives troisième 2022 tu rafles les plus grandes mairies 2000 euh, ñu toog ci élection législative nga yóbbu mbalatoire le camp présidentiel 2024 de l'histoire du Sénégal en opposant def campagne deux semaines gagner les élections au premier mais kooku ban conseil nga koy jox kooku su la dégloo sax mais kooku kooku dafa kooku su la mais parce que su dégloo sax le conseil ay ñi may gis ni ay Babacar Jonn ay gars yi nekk ci télé yi ces journalistes corrompus là ay taxawaalu ba sonn xamuñu fu ñu taxaw naan dañu conseiller Pastef mais si Pastef <laughs> jël en considération ces gens là ma xam ne Pastef kon voilà dañu ñàkk fayda parce que comment tu peux avoir ce parcours le parcours exceptionnel du président Ousmane Sonko naan kafeem yooyu ay madeleine ñoo naan waa Pastef nii la war a defee gis nga bu ñu non faites ce que vous avez à faire ñun ñun la ñu dénk réew mi. ce pays on l'a confié au président Bassirou Diomaye mu jël le premier ministre Ousmane Sonko yéen la ñu dénk suñu réew aux de Pastef n'ayez pas honte de vouloir diriger le Sénégal vous avez les capacités vous avez les compétences Pastef il y a que des têtes fortes il y a que des parti je le connais comme le bout de mes doigts parti Pastef dama ko xam ma xam depuis 2014 je suis depuis 2014 maa suivre le parti Pastef faites ce que vous avez à faire et ñun bu ñu accès en 2029 nous jugerons nous jugerons lan la fi Pastef def et si c'est positif ma ñu renouveler notre confiance au au au président Bassirou Diomaye Faye si c'est négatif bah écoutez on passe à autre chose et même Mais oser, pourquoi je dis oser Mais Bassir Diomaye Faye, il peut faire deux mandats. Je ne sais pas si Ousmane Sonko a l'ambition de se représenter un jour après Bassir Diomaye Faye pour nekk candidat aux présidentielles mais le prochain président de la République du Sénégal mais d'ici je sais pas combien d'années mais il peut bien le bien sortir de Pastef mën na nekk un jeune de Pastef boo xam ne le fait que mu am liggéey bu Sénégal soit dans un ministère yëpp teg ci seen Mais peut-être le choix des Sénégalais en 2035 ou 2040 ou 2050 portera peut-être sur cet C'est juste que je ne veux pas que vous réduisiez ce parti seul à, au, au premier Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Faye. Parce que loolu su ñu ko defee rek mais après Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko mais le Sénégal doit ne doit pas s'arrêter le Sénégal doit continuer et comment Sénégal va continuer parce que foog ñu gis pendant le magistère de Pastef ñu gis ci ay yi ñu ngi tuub bu baax di jégalu. de remercier encore mon frère Issa Diène yéen j'ai suivi son ton live mais exceptionnel Issa parce que bon Issa fu muy gisee des fois booy gars yi ñu bëri dañu gisee foofu quoi dañu nekk Facebook bi bon après moi personnellement des je fais en live une vidéo benn booy jóge fee waaye xam nga bi xam nga euh, je te dis la bien bro nice na bro après je passe à autre chose quoi je dis ils ont rien compris ils viennent là ils te cassent la tête ñoom dañu foog ne voilà li parce que bon cette personne tu que cette personne a l'esprit d'un apériste quoi parce que quelqu'un qui réfléchit ainsi naan non que gis nga projet boo xool loolu Ousmane Sonko dafa ne woon mais Ousmane Sonko dafa dafa dafa di euh, euh, moom rek mu mu mu je sais pas comment comment dirais-je Ousmane Sonko Euh, comme si Ousmane Sonko voilà moom Ousmane Sonko après Ousmane Sonko le Sénégal n'existera plus jamais quoi am ñoo xam ne esprit boobu la ñu am Ousmane Sonko n'a jamais la yem. Ousmane Sonko ñaari yoon la ko wax ñun on était là depuis le début ah, moo tax soo gisee mën na boy bu fële fii naan waaye focus bi xam nga projet bi nii xam nga naan bien vu waaw jaajëf bro après tu passes autre chose quoi parce que je sais que ton degré de compréhension ce degré compréhension moo des parce que ñun fu ñuy waxee ak fi ngay waxee du on dit tout simplement qu'on ne veut plus ñu nommer fi ay nit ay direction dans les ministères ñoo lekk suñu wax mais que ce soit des gens de passif moi je de passif man que ce soit des de passif, que ce soit des militants de passif. man loolu lay wax man en fait j'ai pas le complexe que les gens ils ont sur réseaux sociaux yi su ma waxee lii tam gars yi gisee su ma defee nii tam gars yi jom lijjantiwuma ko fait quoi parce que moi je dis ce que j'ai dire en fait dem sama yoon après ku ñëw naan la kii bi nii xam nga la xaw ma lan ak lan bi seen wax yooyu ñuy wax nii bind ko damay je je lis des fois quand j'ai le je réponds bien vu bravo jàmbaar nekk si jàmb jàmbaar et puis je passe à autre chose mais quand j'écoute Issa ah ma ne quelqu'un qui a compris quoi et, et par que mi ngi commencé Qu'on me donne un exemple. Comment qu'on dirait que ma baille Un seul exemple, ton pays. Si nous faisons en parti, nous ne diriger. Voilà, parce qu'on on nomme sur la base de la confiance. Important, on nomme sur la base de la confiance d'abord. Et acquis ta confiance avec les gens avec qui tu as cheminé. ñooñu xam nga leen xam nga seen jikko donc yow tu es tu seras beaucoup plus à l'aise avec des gens avec qui tu as parce que xam nga leen xam nga seen jikko que d'aller chercher des gens Parce que Bouboba, le boss aussi, mais tu vas juste créer des frustrés dans ton parti politique. Et vous allez créer, parce que tu top et boy, nek fi, focus bini, boy, du bin de focus bini, comme ah, grand, comme focus bini, tu le top et Vous allez commettre de grosses erreurs parce que vous allez créer des frustrés dans votre propre parti politique. parce qu'il y a des gens qui ont envie de bosser pour ce pays. Passif, ayez le courage, ayez le culot, le toupet de vouloir être comme Ousmane Sonko ni ñu koy tuddee Sénégal ayez le courage le toupet de vouloir être comme Bassirou Diomaye Faye dans ce pourquoi on doit on doit s'arrêter à la personne de Bassirou Diomaye Faye à la personne d'Ousmane Sonko comme si le reste moom bon, ils comptent pas quoi ce sont des gens inutiles des gens qui sont là juste pour décorer euh, euh, la galerie quoi donc loolu laa bëggoon wax gars yi ñu ngi tuub baax di jégalu bon dama dem jéem a tënk vite fait li ma bëggoon wax parce que fan une tête ce mec Issa bravo mais par Issa man si opposition bi laa nekk de gis naa ngay wax waxu opposition man opposant radical la donc mi ngi noonu gars yi ñu ngi tuub baax di jégalu et puis di souhaiter tout le monde un bon dimanche.